fekkee ndax suñ moo oto euh, ak oto Cheikh Tidiane yum bu pur ñoo sësoon oto Babacar Diop d'accord ñoo nekkoon ci wetam donc euh, euh, ñun foog naa ni bu tubaab di wax témoin oculaire ñun ñooy les témoins oculaires parce que convoi bi ma nga woon ca gannaaw a gannaaw docteur Babacar Diop avec tout le respect qu'on di doit on n'a pas compris son attitude man personnellement je l'ai pas compris parce que à chaque instant dafay taxaw di bloquer ton convoi bi avant c'est tout ci bloqué bu ñu gars yi ñëwee wax wax wax ba dindi ko ba nit ñi avancé moom mu taxaw à droite bu ñu avancé ba ci kanam on le retrouve ci kanam encore mu bloqué waat convoi bi je sais pas peut-être qu'il a ses raisons peut-être qu'il a ses la coalition c'est pas à de lui faire la morale parce que mu nga woon ca coalition bi depuis local wala ma nga woon ca coalition bi de barki mais damay wax ne coalition Yewwi Askan Wi amul kenn ku ci ëppale sa morom du ki ko sos du ki ko signé du ki ci mujje du militant ba ca mbedd ma nga xamante ne kartam dong la ci yor du ki nga xamante ne parti la ci yor du kenn ku ci ëppale sa morom alalu askan wi la demande sociale askan wi ñun moo ñu indi fii askan wi moo ci indi keneen ak keneen kon ñëpp ñoo ko bokk ñëpp ñoo ko bokk mais soo bokkee ci dara nga am frustration nga bokk ci mbir mais boo demee ba jóg taal sa oto dem gàttandu ji leader yi mais la moindre des choses mooy nga saafante ak ñoom ne leen salaamaaleykum ne leen yéen a ngi Cees waaye yow nuyu woo yow saafante woo yow dalaloo yow tertuwuloo mais nga ñëw ci convoi taxaw ca kanam ne convoi bi du dem ay incident am ci nga choisir nga choisir koo xam ni identifier nga ko nga ne kii moom moo def loolu je dis du dëgg peut-être nag Babacar Diop ci boppam man je lui dos donne le bénéfice du doute que dafa juum wala dañ ko induire en waaw wala dañ ko induire en mais su waxee ni euh, ki tudd Momo moom moo ko def loolu ay briques yu kenn xamul mais loolu mu wax du dëgg. du dëgg à quoi on joue on joue à quoi on joue à faire perdre aux gens leur temps à quoi on joue on veut divertir qui kan nañu ñu bëgg a divertir parce que fii lu fi waaye teg foog nga ni nit nga koy def Maimouna Bousso nga koy def wala Ousmane Sonko nga koy def wala keneen def wala coalition bi defoo ko kenn fii bépp acte bu fi nit posé na ko mesurer parce que tu le fais au peuple sénégalais tu le fais contre cette volonté que ce peuple a d'aller à ces élections et d'enlever cette majorité mécanique au président Macky Sall. Donc, man, je ne peux pas penser qu'un Babacar Diop, avec tout son chemin, Djar Djaram, Djambarem, Ligueyam, Akhekham, nous ne Buffy, du Taho, di poser des actes qui ne bénéficient qu'au régime du président Macky Sall. Parce que, euh, euh m'a précisé que l'olo amul ben impact sur nos dynamiques. Ben impact la amoul sur nos dynamiques. Certes, les gens de loin entendent am na policier yu dem ci euh, ci ci biir kii bi ci biir euh, euh, hôtel bi pour am na une convocation mais que les gens se rassurent parce que il n'en est rien il n'en rien gis nga fii amul kenn dama ni ñun ñëpp sax ñun bu ñu téye woon sax du tere convoi bi continuer dem fu mu war a dem saafante ak sénégalais yi egg fu mu war a egg donc à quoi on joue Euh, euh, policiers yi nag ce sont des gens responsables des républicains ñu ngi saluer seen démarche jot nañu plainte euh, déplacé wu nañu pour ñëw xool lan la wax nañu itam ak kilifa yu mata kilifa yoo xam ni tontu nañu leen d'accord parce que déclaration contre déclaration Babacar Diop bu waxee taxawee ne dañ ko def lii te moom mu yor kàddoom kese ñun ñii tamit foog naa ni làmmiñ du lekk moroomu làmmiñam te ñorut ñun ñii ñu mën a taxaw ñu nit seede ni loolu mu wax amut te ay seede lañu muy Cheikh ak man mii ndax kenn jaraluñu ñun ñuy taxaw di wax loo xamante ne amul. loolu mu wax amul ñu pare nag pour def une déclaration écrite même devant huissier parce que nag on n'a pas de temps à perdre ay temps wu tontonte ak ay temps wax amuñu ko. amuñu ko dañu nekk ci liggéey te ci liggéey boobu moom la ñuy continuer ci liggéey boobu moom la dara duñu divertir. damay rassurer les uns et les autres bu leen fi nekk di passer seen temps di def ay publication si ce qui s'est passé avec Babacar Diop wala avec Thiès continuer à partager cette dynamique continuer à passer à partager cette cette cette ferveur populaire contagieuse bi nga xam ne même ñi jegewul ils vivent ça continuer là-dessus et ngeen tegee les les incidents de kii euh, euh, def na lii kii def na une plainte ko kes ce qui est quand même bizarre que Sénégal ñaata yoon lañ fi porte ni plainte Thiès lañ ko porte plainte waaye waa Thiès mën a woo waa Tamba xool leen Thiès ak Tamba ni mu sorantee di laajte des comptes donc on sait que loolu c'est pour juste retarder suñu convoi retarder euh, la dynamique de de de suñu tête de liste muy Ousmane Sonko mais c'est peine perdue parce que fii Dakar ci boppam sax ma ne la Dakar. nit da lay tooñ nekk biir commissariat central ngay porté nga dëkk parcelle sooy porté plainte dañ naa demal ba commissariat central yéen ñi di ma déglu xam ngeen ci loolu dara. kan nga mës a gis nga dëkk géejawaay ñu tooñ la géejawaay nga dem porté ji ko euh, euh, euh, biir Thiès amul donc pour lan parce que ki ñu amal affaire il va reculer devant aucun détail aucun détail pour tarder ñu. aucun détail détail bu ndaw sax dañ koy jël bu jëm ko exploité détail bu ndaw sax dañ koy jël jëm ko exploité parce que Thiès la mbir mi xewee nga convoqué nit ki Thiès xaaral ba mu ñëw nit kay xanaa di nga ko convoqué benn yoon ñaari yoon ba ñetti yoon boo ko gisul nga door a diligenté quoi que ce soit et puis sax dalay jox preuve du déclaration kese la nit di ñëw bind rek déclaration wax diw def na ma lii nga nga jàpp ci loolu mais Thiès la amee Tambacounda lañuy ñuy ñëw di laajte des mais nag rassurez-vous rassurez-vous rassurez-vous ci li nga xam ne moom ngeen di def mooy suivre la coalition Yewwi Askan Wi suivre la caravane sensibiliser les Sénégalais ci fi ñu war a voté Yewwi fi ñu war a voté wàllu Dakar Yewwi la pikin wàllu la Géejawaay Yewwi la fépp fu ñu jaaragum ñun ba léegi ñaar moo ci doon wàllu yi ci des yëpp Yewwi la Kaolack Yewwi la Tivaouane Yewwi la continuer leen di sensibiliser ci loolu ñun on fera des petites vidéos yoo xamante ne euh, euh, des petites vidéo yoo xamante ne pour euh, gën a yokk sensibilisation bi on va le faire incha allah lu weesu loolu continue leen ci sensibilisation bi continuer leen ci partage bi parce que nag la joie est contagieuse moo tax ñu bare seen xol yi actuellement neexul parce qu'ils ne supportent pas de voir la, la joie des uns ak le, avec le, le, truc de l'enthousiasme des autres. partager cette joie, cette joie de vivre, cet espoir de ces, de ces Sénégalais qui, sont, de, qui sortent de partout, des villages, des contrées, génn à la rencontre de Yewwi Askan Wi parce que espoir bu ñu porté ci coalition boobu continuer leen di partager loolu continuer leen di di transmettre loolu te bàyyi leen euh, euh, ñi nga xam ni ñoo bëgg na ci détail ngeen bàyyi leen ci détail bu leen sacrifier benn poste ak benn publication di wax ci loolu parce que c'est leur donner ce qu'ils veulent gis naa une certaine presse qui depuis barki démb ci loolu lay tourner en boucle Babacar Diop dépose une plainte ña ña ñi ña na ña nananana ça tourne en boucle ça tourne en boucle parce que soi-disant on les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne yéen occupez-vous des trains qui arrivent à l'heure et les autres trains retardataires laissez-les là où ils bu leen leen toppatoo bu leen leen faale dox leen ci l'essentiel essentiel mooy lii mooy lii sénégalais yi génn seen xol yi sedd ñu am yéene am espoir taxaw ci loolu bu leen perdre seen benn énergie ci leneen bu leen ko def bu leen ko def parce que bu ngeen ko defee rek dangeen ngeen di may euh, euh, euh, mbañ sagoom li ko wolof di waxee dañu ngeen di may may mbañ sagoom parce que loolu mooy nit ki am na lu mu bëgg mooy existe mooy taxaw nit ñi nekk ci ci lii mu nekk euh, divertir nit ñi ci leneen ngeen ñu bëgg a wax ci loolu bu leen ko nangu donc vraiment ñëpp ñu nga xam ne jot nañ message bi maa ngi leen di ñaan loolu kese moo nekkoon soloy kàddu yi ngeen rassuré wu xam ni fii euh, yomb na nga taxaw def sa plainte wax say wax ba mu bëre mais nanga koo mën ay waxee yow taxaw noonu la ay nit taxawee seede ni loolu nga wax ñoom it am nañ beneen version bu ñu ciy wax beneen version bu ñu ciy wax te incha allah lu mu laaj rek ah dinañ ko ci def lu mu laaj dinañ ko ci def bu laajee dem ba Thiès taxaw seede ko dinañ ko def te nag euh, euh, je pense que euh, am naa yaakaar ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw lii dinañu ressaisir mbir suy dem soo ci mënta teg sa loxo mu dem bàyyil mu dem voilà soo soo ci mënul teg sa loxo mu dem bàyyil mu dem moo gën yenn yi parce que yenn yi da lay tuutil lépp lu nga liggéeyoon ci sa avenir da koy wàññi da koy wàññi vraiment euh, ñun nag on n'est pas là pour joxe des leçons à qui que ce mais on dit tout simplement ah et on le dit nag avec fermeté avec fermeté yeeyu askan wi amul kenn ku mu taxaw naan ma naan ñu ñoo la ci jiitu yow bul wax wala munoo wax wala bañ tey liggéey jotoo ca parce que dama ne yeewu askan wi bi ñuy ñëw di ko samp kenn samp ko ci kaw asamaan si ci ñàkk ak ci liggéeyu opposition bi ni ñu doon liggéey ci Macky Sall 2012 ba léegi moom lañ dajale def ko yeewi askan bi kon Sénégal yi nekk seen kër ñëpp dañ cee am dañ cee am dañ cee am wàll te koo xamante ni gisatoo ci sa bopp yoon waa ngi noonu mun nga jaar fa la neex nga dem fa la neex wala au moins nga am décence li ngay wax bu dee gëm nga ko ni yow xeex Macky Sall moo la tax a jóg ni yow tu es contre sa sa sa régime depuis le début nga constant ak sa bopp. nga teg sa la nga teg ci suuf nga bàyyi ba lii jeex li ngay régler nga régler ko mais en pleine campagne électorale di divertir nit ñi ay dama ma Massamba ay dama Demba ma attends attends attends mais on jour à quoi là on joue à se faire peur tout waaye nag waaye ren di sa loxo lay naaj fii kenn deful kenn deful Sénégalais yëpp xam nañu parce que nit ñi mënuñu taxaw di def yenn yi à ce moment précis laa où en marche en marche on veut arrêter en train en marche y a problème ah donc vraiment foofu laa bëggoon loolu laa amoon sañ-sañu ñaan ko ñi nga xam ni suba ba léegi ñu ngi bind ah commencé ragal commencé di di publier commencé di mer ma leen di wax nañu dalal seen xel nañu dalal seen xel dinaa génn tuuti ngeen gis quelques image de Tamba comme ça ngeen xam ne euh, euh, les gens sont dans le travail les gens sont dans le travail ku ci mën a bokk nga bokk ci ku ci mënta bokk nga dem xool leneen loo def attendez tuuti gis ngeen dama obligé nekk ci ginnaaw pour mën a wax ngeen dégg on est à Tamba comme a Tamba yëpp génn. gis ngeen askan bi ñu ngi taxaw ci seen i balcon di taxaw seen kër xale yu ndaw yi espoir bi. je pense que am na lu gën a doon l'essentiel am na lu doon l'essentiel lu dul ay détails lu dul ay détails am na ku wax affaire ay pierre ci pare loolu yëpp amu fa pierre bi dañu ko def parce la voiture la am ay nit ñu teg bi ay benn benn benn ci bunt ci kanamu pneu bi pour bloquer oto bi pour que bi a ci dem bi da doon avancé di bloqué convoi bi a perdu plus loolu moom moo loolu moom moo fa am donc maintenant quand on entend des certificats médicaux des plaintes des ma lan ak lan nous-mêmes on est surpris alors que nous-mêmes on était juste à côté. waaw yaa ngi ci jàmm ça va merci voilà donc dañuy saafoonte ak nit ñi. donc c' est compliqué mënoo yore téléphone dama leen bëgg a wan ci suñu tête de liste wax ko mu génn tuuti buuba génnal tuuti ne ma jël image après nga ñëw ma wan leen ci suñu tête de liste parce que moom ngeen bëgg a gis voilà yéen ngi nii gis ngeen ko ah. ma wan leen ko après ma delluwaat ma delluwaat ci liggéey bi ah donc c'est bon mun nga jël c'est bon de c'est bon bàyyi mu jàll bàyyi mu jàll donc mu ngi noonu ah kon euh, maa ngi leen di bàyyi nekk ci liggéey bi saafante ak sénégalais yi parce que bu ñu ñëwee ci convoi bi du pour taxaw rek c'est pour que saafante ak nit ñi nuyonte ak ñoom ah, jox leen loxo ñu jox ñu loxo ñu jox ñu seen ay message ñu déglu leen donc loolu itam dafa bokk ci liggéey bi donc après lu ci nekk rek ci kanam dinañ def vidéo yi pour sensibilisation yi donc maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp suivre leen direct yi avec tous les gens qui son sur le devant la presse là ak ñu yore direct yi suivre euh, leen des cœurs la, la tête de liste est devant les gens de la coalition sont tous debout et puis euh, l'essentiel voilà et puis évite les détails parce que les détails ça nous sert à rien du tout donc merci bisous à tout le monde